politique dafa am ay symbole xam nga yow boo ni nga ni nga gagné. yaa ngi doon euh, waa réforme de. ni nga non non si dama la yóbbu foofu. ñu ngi jeexal fii moom. foofu non non non xëy na boobu bëggoo ko. non non non Mame Boye xaaral xaaral. ah non man Kolda moom Kolda non non Mame Boye waaw bàyyi ma non politique symbole la. bor gi bu fekkee ne yow da nga ñëw nga gagné Kolda de manière spectaculaire. nga ñëw gagné. dama koy gagné waat. ñu ñu ñu conseil conseil municipal bi. ñu commencé la faa déstabiliser. non c'est pas li nga xaar xaar li nga xam ne euh, moom mooy nga nga ne nga nekk maire de Kolda département bi maire yëpp euh, exprimé wu en faveur de de Benno <laughs> ba ba mu des kenn ton principal allié euh, nu mu tudd Fabouli Gaye Euh, lâché la bii bi Baldé bi nga xam ne euh, doon na doon def ni il s'est il s'est rangé je pense que il, il va être nommé prochainement Bibi ah, Baldé ah, léegi nommé ko <laughs> léegi nommé ko il s'est il s'est rangé aujourd'hui Mamboy est-ce que Kolda minoritaire ba pare nag ñu jël un jeune boo xam ne troisième la woon muy euh, Doura Doura balde nekk une force en en en progression ñu jël ko jox ko un instrument comme l'ONAS ba pare yow ñu dàq la en 2009 politiquement en 2009 politiquement nan ngay génnee ci loolu. en 2009 en tant que ah. témoin direct de l'histoire une science politique la jàng en tant que témoin direct de l'histoire le PDS a énormément de moyens à Fatick. pour combattre pour daaneel Macky Sall. qui était le candidat contre Macky xam nga ko. non non. <laughs> renseigne il est aujourd'hui dans le gouvernement en de siéger là-bas. li mooy politique mais les populations de Fatick ont montré que seen doom il est dans un combat national ils se sont pas trompés de combat. mais est-ce que am nga est-ce que am nga ancrage boobu aujourd'hui avec l'avènement de Doura est-ce que yaa ngi continuer di am cet ancrage là à Kolda. bu la neexee laa wax bu la neexee ma fay publier reportage suba nga waneel ma accueil Kolda bi fii loolu rek lay jël comme atte nga wane accueil bi ma waa Kolda teeroo man waa Kolda mënatuma leen fay. liñ ma defal dafa kawe suma njort parce que ñooñu ay góor lañ nekk ba mu jeex tàkk xam nga dafa am lu nga xam ne d'abord une élection présidentielle. mais pourquoi pourquoi tu es resté cinq cinq mois sans aller sans sans aller à Kolda je suis resté combien d'années sans y aller. man man man man bu ñu leen dooree élection lañ gëjoon a def ay activité Kolda ah léegi lañ xam Kolda et puis ma présence ne sert pas à quelque chose là-bas moi j'administre une commune au quotidien est-ce que yaa ngi comprendre man dama daan toog fii gis nga Kolda mooy gën a taw Kaffrine. wala Kolda mooy gën a taw ndakaar Kolda mooy gën a taw Tambacounda mais Kolda mosul am inondation bi ma nekkee maire ba léegi ñu di ma gis bés bu ne li ma war mooy liggéey et je travaille au quotidien pour Kolda gan yi nga xam ne dañ daan dem Kolda dans le cadre de leurs activités ñoom ñoo lay ne li ñu gis Kolda mosuñu ko gis ñoom bu ñu ñëwee ci seen plateau yi parce que c'est comme ça xam nga les journalistes aussi ne s'informent pas ñu la moi j'ai fait une bibliothèque combien de communes ont des bibliothèques municipales wax ma j'ai fait un parc un manège au Sénégal ban commune nga gis bu am manège wax ma quelles sont les communes qui créent des espaces d'attractivité moi je vais inaugurer un parc là. non <laughs> mais y a rien d'extraordinaire. toutes ah, les communes ont des initiatives pareilles. xam nga yow xam nga yow tu connais les. mais si à Thiès à Thiès Babacar Babacar Diop a a a a a un projet comme ça. ah il a un projet. oui donc il n'a pas encore fait. oui moi que xëy euh, na euh, ah, tu non non non non non <laughs> tu étais maire majorité présidentielle. c'est mon budget d'accord mais mobilisation recettes yi pour les mairies c'est plus facile quand on est au pouvoir c'est plus c'est moins ma ne oui ma yéen ak un maire opposant

Est-ce qu'ils comprennent combien c'est grave À Kolda, il une télévision qui émet sur, donc, sur Internet, mais qui a tout d'une télé comme la tienne. mais bu nga xam ne kenn nangu ko jox fréquence. joxe fréquence bi nag. loolu y' a cinquante au minimum cinquante emplois. Hmm, Macky Sall mooy joxe ay fréquences. waaw mais y' a cinquante emplois là-bas c' est une télé qui émet qui montre Kolda qui montre Ziguinchor qui montre Sédhiou qui montre le Sénégal et qu'on empêche sur le bouquet TNT qui est une, une, une affaire nationale quand même comprendre nga. ma ma dama ne je ne peux poser je ne suis pas une élection locale l'école doit me montrer que bëgg nañ ma man loolu doy na ma. mais xam nga la te xoolal ñoom ñooy fajal seen bopp. xam nga ban baromètre moo nar a important. on va surveiller euh, le résultat qu'on va surveiller euh, résultat bi nga xam dina bokk ci ñuy surveiller mooy on va voir si Doura va. battre faire battre Mamboy à Kolda non si Doura dina euh, ak Moussa Baldé si Doura ak Moussa Baldé ak Bibi Baldé euh, ils vont prendre le dessus sur la coalition Diao 24 à la présidentielle de 2024 la ñuy xool les Fatikois ont donné la plus belle des réponses xam nga on a toujours dit que Kébémer est un fief de Abdoulaye Wade voilà waaw ah. donc yow Kolda sa fief la kenn mënu ci dara ni Ziguinchor nekkee fiefu Ousmane Sonko. Hmm. ni Fatick nekkee fiefu Macky Sall. noonu la Kolda nekkee sa fief nekkee fiefu euh, kële ko euh, Abdoulaye Wade noonu la Kolda nekkee fiefu Mame Boye Diao ci élection présidentielle yi ñu jëm jarul ma fay campagne ñoom ñoo koy fajal seen bopp xanaa waa waa Fatick wala waa Kébémer wala waa Ziguinchor ñoo gën waa Kolda wax ma rek seen doom dina nekk candidat yi élection présidentielle yi naa dañuy wëri fa maintenant nag. indil ay communicant ay yooyu xam nga dafa yomb de man daal nee naa xam nga